ay waajur yoo xam ne ñoom ñoo ñu jiitu woon yore liggéey bi ñu yore tey doon ko doxal te def ci loo xam ne xalaataguñ ne ñun danañ ko def waaye yaakaar naa ne ñoom fuñ toll ñi ngi ñuy ñaanal pour ñu def ci lu raw ñun ñoom liñ ci defoon ba ñun tamit bu ëllëgee suñ ko bàyyee suñuy rakk ñu mën a jël sous quartier bi aussi yóbbu ko foo xamante ne nii ñun tamit foofu noonu lañ ko bàyyi woon kon fi ñuy tàmbalee moom mooy dañuy sant sant yàlla bu baax a baax parce que bu ñu fàttalikoo ay jamono ci ginnaaw ñëwoon nañu tase fii nii ci école Mérina Sorah di fi def lan mooy di fi tegaat bureau boo xamante ne nii moom mooy doxalaat association bii di ànd suqali Mérina Sorah ñu jëlee woon ko ci loxo doyen Diaga Diop doyen Mouhsin Diagne ak ñoo xamante ne nii ñu mel ni ñoom. mais aussi à Kenga nga Mon ne Moussesen, moom mooy monsieur le président de l'association Kircher euh, Kër association pour le développement de Kircher Ibrahim Afal Fall l'association mère kon nous, bu nous, né dañoo jël nous, bi jëlee ko ci ñoom yaakaar naa nous, kon damay wax ne am tâche bu rëy a mais am nañ aussi responsabilité boo xamante responsabilité pour nag moom ñu ne bi ñu tagee association boobu ñu xam ne école tijji na te école bu tijjee ku nekk xam na ne inscription yi dañoo metti ci waajur yëpp xam ne jënd fourniture dafa metti ci waajur yëpp te ku nekk xam na ne aussi ñun ñëpp ñoo fi nekk waaye doole yi tolloowul ñàkk doole yi tolloo yooyu nag moo tax ñu ne nañu dajale nag monsieur Sène suñu ñaat dërëm suñuy juróom suñuy ñetti dërëm pour mën a ñëw jàppale suñu yaay yi nekk ci biir kër yi suñu papa yi nekk ci biir kër yi suñu soxna yi nekk ci biir kër yi mais aussi jàppale suñu rakk yi ak suñu jarbaat yi ak suñu doom yi nga xam ne dañoo nekk ci biir école yi di fi jàngee ñu ne nag nañu wut li nga xam ne moom mooy ay kaye wut ay bic yóbbu ko nag jébbal ko ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy association des parents de d'élèves buñ leen ko jébbalee ñu jébbal ko école bi parce que directeur d'école bi yaakaar naa ne bu fi defut fukki atit mi ngi koy bëgg a jege kon xam na réalité bi nga xamante ne ni moom moo am ci population Mérina Sora te xam engagement xam personnalité mais aussi xam dignité am xam nañ ne lépp loo xam ne jël nañ ko jaarale ko ci ay loxoom bu soobee suñ borom bu ci yàlla àndee dana yegg fi nga xamante ne nii war na faa yegg loolu moom moo taxoon tey ci ndigalu ki nga xamante ne nii moom mooy le président di monsieur Ndéné Wathie ak ñim àndal ñëpp ñu jëndoon li nga xam ne moom mooy juróom benn téeméeri kaye jënd ñaar téeméeri bic ak juróom fukk ne nañ ko jox association des parents d'élèves buñ ko ko joxee ñoom danañ ko jébbal école bi ñu def ci liñ ci war a def mais yemuñu foofu parce que ku wax jàng école jàng nasaraan sa xel aussi dana dem ci fi nga xamante ne nii moom mooy daara alxuraan yi ci daara yi aussi ñu jëndoon li nga xam ne moom mooy ay matelas jënd li nga xam ne moom mooy ay basang jënd li nga xam ne aussi moom mooy ay satala pour rek ñu def ko maanaam participation bu ndaw te xam nañ ne yéen kilifa yi di ngeen ñu ñaanal ba nga xam ne cahier de charge bi nga xam ne yor nañ ko bëgg koo yeggale Mérina Sorah mais bëgg xar kanamu Mérina Sorah jéggi ci kanam kanamu xar kanam yëpp waaye aussi li ñuy ñaan ñun ñëpp Jurbel lañ dëkk mais Jurbel li yaatu yaatu yaatu ñun ñëpp kër Cheikh Ibrahima Fall la ñuy dëkk waaye kër Cheikh li yaatu yaatu yaatu yëpp ñun Mérina sooraa la ñu dëkk bu ñu ñaanee Jurbel dem ñaan quartier yëpp dem waaye dañuy ñaan nag ci yàlla ñun tamit Mérina sooraa ku ñu gis ñeeñu yaakaar naa ne loolu moom moo ta waral suba ak ngoon guddi ak bëccëg moom moo doon suñuy jéego ku guddee doo guddal ndax jigéen ñi war nañoo taali ñeneen ñi war nañoo am yeneen soxla te temps nit ki bu la mayee ci temps xamal ne dese la tu dara kon ku ci bàyyi sa yitte bàyyi sa soxla bàyyi li nga doon def yépp ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla daal yàlla bu mu doon suñ maj yu daje bu ñuy dajewaat yàlla na doon daje yu koo xamante nii moom moo ko gën a neex léegi nag ki ñuy jox kàddu gi mu dalal donte ci école bi lañ ñëw waaye nag tey parents d'élèves yi lañ amal tey affaire ki ñuy jox tey moom mu tijji kàddu gi moom mooy suñu yaay suñu xarit maire Khady Gueye mu tijji kàddu gi moom lañuy jox soxna Khady Gueye kàddu gaa ngoog ansubillah mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin barke sëñ Touba barke maam Cheikh Ibrahima Fall barke sëñ Fall sëñ Fall sëñ Fall di sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant sëriñ Touba Mbacke di ñaanal sëñ Muntaxa Mbacke yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal sëñ Amdi Modou Mbend Fall yàlla na fi yàgg te wér suñu nuyoo ñu ngi nuyu ñi fi teew ñépp di tàmbali nuyoo bi ci suñu délégué de muy sëñ Njaga Jóob su ma ko nuyoo rekk mu yóbbaaleel ma mbooleem ku toog fii su ma sañoon kenn ku ne ma lim sa tur waaye comme temps bi duñu ko may jël naa nuyoo bi teg ko ci loxoom mu jottalil ma ko ma nuyu directeur nga jottalil ma nuyoo bi ci ekool bi jàngalekat yi ba ci élèves yi ba ci gardien bi fi nekk maa ngi lay jox nuyoo boobu di nuyu association bi nga xam ne tey ñoo waral lii yëpp tey ma jël nuyoo bi teg ko ci loxo Ndéné mu jottalil ma ko ñoom ñëpp kenn ku ne bu ma sañoon ndax ñëpp ñoom ñëpp xam naa leen ci koñ bi lañ dëkk fi lañ juddoo fu leen yareel kenn ku ne mën naa jaar ci sa tur waaye jël naa nuyoo bi yëpp teg ci loxol ndende mu jottalin ma ko bu baax a baax di nuyu parents d'élèves yi fi nekk yépp maa ngi leen nuyu di leen jaajëfal woote ñu wuyse la maan nax ndax seen mbir la waaye nag temps moo amut ngeen bàyyi seen yitte yëpp ñëw maa ngi leen nuyu di leen jaar bu baax di ñaan yàlla li ñu fi dajale yal nañ ko tàmbali ci bisimilah yeggali ci alhamdulilah rabil alamina ah di sant nag. tey ñu bari xam nañ sama taxawaay fii mais am nañu ko xamul man maa jiite association parents d'élèves yi ñu faloon ma ko ren maanaam ci ñeenti at ma am ñu ma fi fekkoon ñu liggéey fi liggéey bu rafet yàlla mi nga xam ne nag mooy joxe yàlla jox ma ko muy liggéey boo xam ne liggéeyal yàlla la liggéeyal yàlla mooy liggéeyal xale kon liggéey boobu bañ ma koy jox keroog ci bu leer nañ kon lolo ba koy jël ma ko dina ko jël ci na talal nak sama loxo mbollem ko xamné rek comme ñi tay nga ekol ñu japp ci école ndax école bi suñu école la du école kenn ñoko ko kon lu way lu ci way def rek yalla mom gis na la di leen sante yit ndax da ngeen fe tuddu yit tamit mbirum daara te ma yëngatu ci daara kon laal ngeen ma fep kon li mom manam suñu yëf la may jéggalu nak guddé gi damaa yoroon ko xaw a tawat tey maa leen waroon na dalal lal basan yi teg la teg siège yi waaye nag loolu la yàlla dogal maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax di am nag di sant association parents d'élèves yi wax dëgg yàlla ñoom it gis nañ seen taxawaay bu baax ñu gën a góorlu bu baax a baax a baax ndax lii rek mooy liggéey di sant nag association bi ndax gis naa seen taxawaay rawatina daaw liñ fi def ren tamit gis na bay école bi bo gisé mbay mi fi jaar ma sha allah ndax fi école yu bari won na ay ñax ñun buñ ko daan balé dañ daan son carrément ñom ñu taxawal lu melni directeur daan ci def xaalisam ñu taxaw daw bay école bi bam set ah euh, ren tamit ñu def nonu ñun ñi nga xamné association bi bañ ñëw kérok balé rek lañ def kon yeen seen taxawaay rafet na trop ci école bi ngeen walbatiku ne da ngeen ñëw indi li nga xam ne tey mooy soxlay parents yi naam am nañu njënd waaye kaye du doy bic du doy kaye saag du doy ndax école fukki at fukki weer la kon yaakaar naa ne kaye moom du doy ngeen wëlbatiku ñëw jàppale ñu foofu kon maanaam yéen yàlla lañ leen di bàyyil mu fayal ñu leen te fi ngeen teg seen tànk bu leen ko dindi mukk yal na leen yàlla kàttanal may leen wér gi ak tal gi ba ngeen gën a jàppale ekool bi bu baax a baax a baax ñu ngi leen di gërëm di leen jëfal ndax xale yi lu leen defal buñ ko fàtte man ne damay dox ci mbedd xale dam ma suñ tataa ngi ne man leen man jàngaluma leen de dama ñëw rek di leen jàppale ci école bi kon xale lu ko waay defal rek du ko fàtte mukk te lii ngeen defal xale yi di ngeen dem ba xale yi lu nee ngi ci suñu lu nee ngi ci xale yi nañ leen gën a jàppale parents yi yéen laay gën a soññaat école bi seen école la ni ngeen gën a jàpp école bu baax a baax xam ngeen li ma leen di wax seen école la de gis nga lii ñuy woote nii tey gis la gi ñu gis leen léeg la dañuy woote fukki ni sax duñ leen gis te seen yëf la kon nag nañ leen gën a jàppale école bu baax a baax te xam ne sunu yëf la lu ne nga ci président dana ci génn lu ne dana ci génn kon nag nañ leen gën a jàpp bu baax a baax yàlla gën ñoo dimbale musal ñu ci catal mu si baak balaa ban yeggale sago yi jëri ngeen jëf da nga gis ñu dox ay kilomètres yu baree baree baree bari ñëwaat fii waaye ku ci nekk rek tey aussi da ngay jël sa doom jàpp ko di ko inscrire muy dem di dem ci ay salle de karaté ay salle de gymnastique ay salle taekwondo pour dem def sport ñuy jóge fii di dem ba dëkk ba di defe loolu association aussi ci taxawaayam monsieur le délégué de quartier ci taxawaayam ñoom ñu xam ne loolu yitte la pour ñun ñu am ko ci suñu quartier bi nii tax ñoom ñu dox ko wax ko ba lijjanti maître Ousmane Ngom école bi abal leen saal kon désormais képp koo xam ne bëggati nga sa doom yëngatu ci karaate wala taekwondo wala lu mënti doon mën ngaa ñëw fii nii ci école bi man na xam naa ne bis boo mokkalee Modou bu sa joxaane dina am problème ndax man maa ciy jiitu kon képp koo xam ne yor nga sa doom bis ni ki tey bu ci kanamee danañ dugal maître Ousmane Ngom ñëw présenté ko population bu Mérina Sora parce que doomu kër Cheikh la loolu rek muy won ne ba tey li nga xam ne moom lañ donnee woon ci yéen jëlee ko ci yéen ñu ngi ciy jéem a def suñ kéemtalaay kàttan buñ jógee foofu dañuy lahi min asheytan irajim bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala seydina muhammad sant yàlla bu baax a baax julli si yonent bi di gërëm ak sëñ Tuubaa wax seigne muntaha yalla fi yag kep ku fi tew ñu ngi lay ñaanal di len jaajeufal di len jox seen way mak ak ndaw goor ak jigen di tambalé ci nuyu bi imam wala Naim, jall ci délégué de quartier bi mu nga xamni mom da fay togué triple casquette délégué de quartier la inspecteur la mais aussi parent d'élève la di nuyu di nuyu président association des parents d'élèves Khady Gueye trésorière Mbayenka ak bép bureau bi di nuyu aussi le président de l'association bi nga xam moy Suqali Mérina Sora muy néné ak ñima andal ci liguey bi ñukoy ñukoy jappalé tay bis bi def di bis bu reuy ci Mérina Sora def na fi juroom ñaari at ab association mu ngi soga a fi am xalaat bu rafet na day jàppale waajur yi jàppale waajur yooyu nga xam ne ni lu nguur waroon a def la lu collectivité territoriale waroon a def la waaye ñu ne ñoom duñu seetaan ndax ñoom ay waajur lañu ci koñ bi lañ dëkk te Golbert de daan naa dégg mu naan dëkk ci dëkk bi defar dëkk bee ko gën te defar dëkk bi yaakaar naa ni mu ngi tàmbale si lii nga am sa alal di ko def si école te buntu defaru buntu defaru ak buntu suqali am réew amul feneen lu dul école la école rek nga mën a jaare pour defar koñ pour defar ab gox kon ñu ngi leen di santaat bu baax a baax kenn amul seen fay yéen waajur yi ñii yéen lañ fi nekkal yéen la ñuy jàppale ndax ñépp mënuñoo nekk fépp ñii dañuy nekk fee ñii nekk fële kon buñ jógee di def lii yéen lañ koy defal loolu lan la tekki nit nag bu ñëwee di la jàppale sam njàngum doom yow yaa war a njëkk a jóg di saytu sa jàngu doom sa kër ga ak si école bi kon lool lu am solo la kon dangeen a war a santaan ñii bu baax a baax a baax kon bu école wootee ñëpp dañoo war a wuy si xam lan leen leen doye parce que njariñ kese la lii ñu def nag du la première fois joxe ay jumtuwaay ay téere ay kaye ay bic lu am solo la ñun xam nañ si bu baax waaye école bii tey bu ñu fi mënee jàng ñaari at yi te génnewuñu xaalis nan leen ko sante bu baax a baax ndax daan nañ fay ay cent mille soixante quinze mille francs pour bay école bi loolu ñu teggil ñu ko loolu beneen participation la boo xam dafa dugg ci lii kon loolu ñu ngi leen koy sant bu baax a baax résultat entrant sixième certificat yi bu jëmee ci kaw ba parents yi kontaan dugal nañ ci seen loxo ndax jàngalekat yi nga xamoon ñoo yor classe yooyu am na lu ñu doon jëflanteeg ñoom ba école tëjee pour man leen a jàppale pour gën leen a ñaax motiver leen bañ gën a mën a jàngal xale yi ngoon yi nga xam ne ni du seen i heure loolu tamit lu am solo la kon loolu dama bëgg ngeen xam ko ngeen xam ne ni association bi benn parent waratul seetaan mag ndaw góor ak jigéen dañoo war a dem sa association bi jënd carte bokk ci association yi ndax yéen ko moom ñoom dañoo nekk ci bopp bi rek yéen la ñuy liggéeyal yéen la ñuy def bu école bi jagee ngeen jag ndax seen doom yi bu ñu jagee rek ngeen jag ndax kat ñu ngi leen di jàppale kon war ngeen leen a gërëmaat santaan leen te jàppale leen si lii nga xam ne ni moom la ñu bëgg Mérina Sorah yegg fa yéen a ko mën a defar ñun ñoo ko mën a defar ñun ñu dëkk Mérina Sorah kon loolu laa amoon si li may wax si wàll woowu nga xam ne ñoom ñu ngi koy def tey ñu ñëwaat defaat lii ah dinaa gërëm tamit euh, sama jigéen Kiné ndax daf see bokk ndax bi may ñëw si yoon bi rek daf ne ma xaar ma am na lu ma la war a jox ndax am na keneen koo xam ne doomu koñ bi la ku ñuy wax tiijaan Dia mu joxoon ko quelques kaye ak ay euh, ay bic ak ay batonde ak ay double ligne ne nañ ko jox quelques élèves loolu tamit il fallait que ma jàllale ko wax ko ñu ngi gërëm Tidiane Dia également di gërëm euh, aussi ki ne mi ñu ko jox ndax am na solo boom bu doon benn bic sax wala benn kaye yaa ngi dimbale yaa ngi jàppale kon loolu kii nga xam ne yoragul dara di la sédd yaakaar naa ni bu amee ëllëg dara dina la war a mën a dina la war a mën a dolli loolu tamit ñu ngi ko koy ñu ngi ko si sant bu baax a baax si jaajëfe yow di sant également manumaa jàll te santuma sama jàngalekat yi de gisu leen fi de teewuñu fii mais ñu ngi si école bi ñu ngi nii si classe yi di jàngale keewa sa sem deux bi di jàngale élèves yi classe bii boo gisee ñu tëj ko am na ku nekk si biir di peinture ab jàngalekat la de loolu du rôlam ngi peinture classe

kenn joxu leen ko digalu leen digaluma leen ko parce que bi ma ñëwee gis ko man dama ne man de waaru naa ndax man daanaka ñaar fukki fan ak benn nekkuma si école bi waaye damaa ñëw fekk école bi ne cocc réglé kon ñooñu dañuy wane ni ay kilifa lañ ñu mat a bàyyi si dëkk lañ ñu mat a bàyyi sim réew lañu kon bu ma leen bàyyee école bi ñu siy jëf loolu ba jës si loo xam ne bokkul kooku parents d'élèves yëpp a leen war a war a sant waaw léegi nag bu fekkee kat bi nga xamni ne salaire am la yor bu jangale bu elew ñewé jang ñu fay ko bu elew ñul mu ñew ci école bu wër déwé dina ko ji koku nak jëlaat si li am silima salaire am waroon koo jox njaboro def ko mu koy dugalaat ci école bi waye kon nu wajur bi wara taxawé wajur bi nga xamni da daf baye ndongo mu fi jang nga xamni ni souvent sax buñ koy bind du ñew ab ngone lay yabal ne ko demal bindal ma sama dom loolu dafa xaw a doy waar bu xasee ba dénkaane doomam bala nga koo gis xale bi rek daa am problème wala ñu dàq ko wala mu am problème feneen loolu tamit dafa doy waar ndénkaane boo ko defee da koy topp da nga koy saytu ndax ni ñuy saytoo xale yi si école bi ngeen koy saytoo sa kër ga bu ñaar yooyu àndee rek xale bi mënta def si diggante bi loo xam daf ñuy ump mbaamu ñuy të kon damay wax parents yi dama koy fàttali président wax na ko xañ nga koo junjul bu baax cotisation yi cotisation yi yéen yéen a ko dige woon yéene woon ni lii ngeen mën a joxe bu ngeen ñu si jàppalewul duñu mën a fay courant bu ngeen ñu si jàppalewul duñu may mën a fay gardien bi bu ngeen ñu si jàppalewul du ñu mën a def li ñu def si école bi école bi 609 élèves ñoo fi nekk ren daa wàññeeku sax 609 mooy ñaatal si olof juróom benn téeméer ak ak juróom-ñeent fii may wax ak yéen tey jii cent vingt élèves rek ñoo cotisé gum loolu mooy téeméer ak ñaar fukk dong ñoo joxee gum cotisation ba école ibbee ba léegi te ñu ngi si octobre ba novembre fi mu ne nii weer téeméer rek ñoo joxagum si juróom benn téeméer élèves léegi nag buñ ko waxul parents yi ñoom dañu toog si kër rek naan waxuñu ñu ko ñun bis bu nekk ñu wax ko xale bi mën nañu leen a dàq xale bi waruñu koo dàq sax ndax xalé bi du ci dara tolluwul fi muy joxe wajur yi dugal xalé yi pour ñu jang ñom ñoo war joxe kon ñu ngi leen di ñaaxaat di leen ñaanaat wër leen école yépp Medina Sora moy école bi nga xamni limi joxe mo gëna tuuti ci école yi ñaar témèr ak juroom fukk ci at mi ñaar témèr ak juroom fukk si at mi xanaa defoon ñaari wër sax wër bi nga joxe témèr benen wër bi nga joxe témèr ak juroom fukk wala nga def ko ñetti wër mu mat bala école kon ñu ngi leen ci ñaaxaat

jàpp leen ci association bi bu ngeen ci jàppee koñ bi jëm kanam école bi jëm kanam daara jëm kanam xale yi suqaliku ngeen suqali seen xel daal Sénégal jëm kanam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax ke di leen sat ke di leen gërëm eh, di wax itam ci turu comme ni ko sunu jarbaat waxee rek ci turu daara yi ak ci turu imaam yi. Eh, ca xam ne lii ngeen taxaw seen taxawaay bi rafet na trop ndax jàppale alxuraan jàppale ay gone loolu mooy jiital avancé am réew ndax buñ ne réew kat xale yi ñoo tax ndax ñi nga xam ne ñun suñ wàll wi na ba noppi taxul ñuy wax kon képp koo xam ne kii ne yaa ngi jàppale daara alxuraan yi di jàppale école yi wax dëgg yàlla yaa ngi jàppale réew mi seen yéene ji ngeen xam ne moom ngeen am ba def ko ci daara yi def ko ci école yi e, ñu ngi wax ki turu imam ak ki turu communauté musulmane bi nga xam ne moo ne ci Medina Sora yëpp ñu ngi leen di sant cant goo xam ne génne am na tàmbali waaye amutub yemu di ñaan seen association bi itam yàlla na ko sans borom bi yàlla jëme kanam ba ngeen am ci lu kawe seen njort ci barkeb Serigne Touba e, ñun nag cant gi moom am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem. waaye nag ñi nga xam ne moom mën nañ seenu wet ñoom lañ leen kalamel muy Serigne Touba Cheikh Ibra ñoom mën nañ seenu wet yar nañ leen jàppale jërë ngeen jëf jërëjëf léegi rek ñu ngi wax euh, tànn ak présidente dama bëgg ngeen tàccu seen bàpp bopp parce que nag li tax ma wax loolu c'est pas un hasard mais c'est un fait qui est fépp fo xamantene ni nit ñi ñi ngi fay dajé pour seeni doom wala pour seeni kër wala pour luy doxal gox ba nañ leen ko wax nag waaye jigéen ñi ñoom ñoo fay ëpp kon dafa mel ni jigéen ñi moom fu dem fu ne ñoom ñooy battre aussi record bi te je parle sous le contrôle du directeur je suis enseignant comme lui mais ñun ñëpp bu nekkee ci biir école yi tamit gis nañ ne dix parents buñ xëyee ñëw école juróom-ñett yépp ay jigéen la ñuy doon kon jigéen ñooñu aussi ameel nañ leen njukkal bu baax a baax mais mu doon une occasion boo xam ne dama koy saisir pour wax ak ñi nga xam ne c'est nos enfants suñuy élèves lañ mais suñuy doom lañ mais aussi suñuy rakk lañ kon xale yi gis ngeen li ngeen xam ne moom la seen waajur yi di daj ku ci nekk nag war ngaa jël ci loolu nga teg ci sa bët parce que jënd kaye dafa metti jënd bic dafa metti wuti fourniture dafa metti boo feebaree ñu daw di dang-dangi fu nekk ñu fay dugg duñu tëdd du ñu nelaw lépp ngir sa jàmm te buñ leen tegoon ne la xale bi am jàmm ak yow nga am jàmm lu la gënal ñu ne la man bu neexee sax naa dem mais na xale bi am jàmm kon xale yéen tamit nangeen góor góorlu na ngeen respecté seen kilifa yi na ngeen respecté seen waajur yi parce que xam ne képp koo xam ne respecté woo sa waajur tamit loo song lu ne jàppal ne dangay saxaar rek waaye doo ma sa tàkk kon na ngeen góorgóorlu doon xale du tee am jom gis nga ñun ñuy jàngale bu ñu duggee ci biir classe bi sax xam nañ xale bi am jom ak xale bi amut jom da nga xam xale bi am personnalité ak xale bi nga xamante ne nii amul personnalité kon yéen xale yi na ngeen góor góorlu ba waajur kenn mënu koo fay waaye ngeen góor góorgóorlu ñu ñaanal yàlla seen waajur yi yàlla yàggal leen fi mais ñoom aussi bu ñu ma bu ngeen màggee ngeen mën leen a noppal mën a jëndi kaye mën a jëndi bic mën a jënd ceeb mën a jënd diw mën a fay courant mën a fay ndox mën a fay lépp seen waajur yi aussi noppaleeku kooku message la boo xam ne dama leen koy lancé yéen xale yi pour na ngeen góorlu xale day dégg ndigal bàyyil bàyyi naa toogal toog naa demal jàngi jàngil respecté li la say waajur jox yaakaar naa ne boo ko defee déggal say waajur déggal maître ba lay jàngal ca école ba boo góor góorloo tuuti yàlla mën na laa dimbale yàgg ngaa gis ñu ne diw nangam ak nangam waaye fan lay mujj parce que diw dafa reew rek la ñuy mujj wax te dañuy mag ñi dañuy wax ne allahuma bu mag. moo gën sa booxul ma la kon nañ fexe ba am ñaanu mag ñi am ñaanu kilifa parce que nit soo amee ñaanu kilifa am naa njort lu rafet ne loo laal lu ne donte suuf la dina barkeel loolu moom parenthèse la boo xam ne dañ ko ci doon dugal pour ñaax ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy suñ doom yi léegi ki ñuy jox kàddu gi moom mooy le président de l'association maire mën naa ko wax fii muy ADKCF nga xam ne moom kër Cheikh gépp la ëmb moom mooy Moussa Sène mooy association pour le développement de Kër Cheikh Ibrahim Fall moom lañuy jox kàddu gu Moussa Sène vous avez la parole. alaykoum wa rahmatoullah. Mbokay ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di bëgg lool nak wax deug Yalla ci cër bi ngeen ma jox ah ndax fooguma ko won. Dama ñew comme parent d'élève rek ah ngeen jox ma cër bi li moy woné né wax deug Yalla ah mënuma leen a fay. Je ah, suis may président de bi association des parents d'élèves nga suis le directeur et le technicien ñun parents d'élèves di nuyu euh, directeur ak technicien yëpp su ma président, présidente euh, parents d'élèves association bi di euh, de féliciter nañ fi ñëpp ak parent d'élèves yi nga xam ne yëpp ñëw nañu fi tey euh, teew fii ci bés bi nga xam ne nii ni ko directeur waxee bés la boo xam ne nii euh, bés bu jar a feddali la bés boo xam ne nii bu jar a bàyyi xel la ba bu ñu fa dajawaatee ay déwén euh, ñu joxe fourniture yoo xam ne nii dana ful lii ay yooni yoon ci loolu lay ñëwee rek ci association suqali ànd suqali Medina Sora ah di leen féliciter di leen encourager ah di wax ne mu jëw leen puso bu mu réer parce que ADCACIF bi nga wax ne mooy association maire nga xam ne maa ko jiite di président bi euh, Médina Sora am na chance tey am fi suma juumul ñeenti membre yu fi teew euh, di doyen Diaga Diop nga xam ne dafa bokk ci ñi nga xam ne nii ñoo créer euh, association pour le développement de Kër Cheikh di Khady Gueye bokk ci bureau bi di man mii di parent d'élève di président ADCACIF di ndeene mii nga xam ne moo yore Euh, Moi président commission environnement bu ADKCIF moo tax bi ngeen waxé né école bi ñaari at ngi ah wax deug yalla ñukoy bay diko top to mu set wecc euh, nek école phare ma ma ci lool parce que ndene ah euh, du école bi rek keur Cheikh gep lako ko kon ndene félicitations nga wëlbatikuwaat kat président association and suqali Medina Sora mu nek sun fierté parce que li nga wax ah ñun dañuy sante yalla parce que ça fait 32 ans. Euh, bi ADKCF euh, juddoo ba léegi muy 1989 ah kii toog sama ginnaaw bokkoon ci ñi ko sos ah, ak ay ñoom moox Moxsin Diagne mi ngeen fi tudd léegi nga xam ne ñoo yoroon association bi ngeen jël ko ci seeni loxo ah mënuñoo wax ñooñu tamit te tudd ñu li nga xam ne moo fi indi école bii tey nekk directeur ah parce que am na ay ñaayu xare yu fi nekkoon ku demee ni que doyen Birane Thiam euh, je parle sous le contrôle de Diaga Diop. ku demee ne kay Adama Thiam feu Adama Thiam yal na ko yàlla yërëm te yeex ñu yàlla xare ko ci àjjana fi taw ñaari xare woo xamee nii wax dëgg yàlla li mu def ci kër Cheikh mën naa ne ay atam bariwul lu mu dund ci zaahir de waaye duñ ko mas a fàtte mukk ci euh, kër Cheikh ndax ñoom ñoo seex xeex ba école bi ñëw fii Medina Sora ndax école bi am na fu ñu ko prévoir ñoom ñoo xel def xar ci seen tànk tubéy pour école bi ñëw Medina Sora kon directeur lii nga hérité ADK CF mu génn te wax dëgg yàlla loxo yi mu tàmbalee ba fi mu yem nii lépp loxo yu sel la ndax wax dëgg yàlla ah bu ñu xoolee Kër Cheikh am na douze sous quartier kon association bu mel nii nga xam ne bi mu juddoo léegi mën naa ne yàgg na yàggu ndax da ngeen koo jël ci seen i mag lii ngeen fi def tey bilan yi bu ñu ko doon xool c'est largement positif te bu ñu xooloon euh, li ñuy wax développement endogène bay ci sa tànk comme ni nga ko waxee Ndiaye euh, douze sous quartier yi bu quartier bu nekk amoon association bu mel ni ànd suqali Médina Sora am kër Cheikh danañ ko dégg feneen foo xam ne wax dëgg yàlla dana weesu suñ njort kon daal wax ji du gudd euh, wax yi remerciement la ak encouragement xam ne ñu ngi ci seen ginnaaw ñu ngi ci seen kanam ñu ngi ci seen ginnaaw ñu ngi seen nijoor ñu ngi seen càmmoñ lépp loo xam ne nii ñun xalaat lañ dese am nañ ko bu ngeen ñu ko laajee danañ leen ko jox te nag di kontaan lool ci idées yi ngeen jox ndax euh, éducation ngeen ñëw fi tey mais ñoom tey moo ñu fi indi moo ñu soxal bi. ñu ngi ci social bi euh, jox nañu ay dons euh, ay at yu passé euh, ci maternité ba ñu ngi ci santé bi ñu ngi ci environnement bi ndax cette set setal bi biñ fi organisé woon mois bu lé passé pour école bi ci ouverture yi ñu ñu ngi ci sport bi parce que li bi ma ko gisee sama xel dafa dal parce que dañ naan un corps sain dans un un esprit sain dans un corps sain kon jang dafa lekkolo ak sport kon buñ xalaté indi fi benn salle sport bu def karaté art martiaux loolu dañ koy rafetlu xalaat yu rafet la loo xam ne nii dana dimbale élèves yi dana dimbale parents d'élèves yi kon daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen encouragé di leen xamee ne daal wan ngeen euh, waa Kër Cheikh wan ngeen waa Njaarim ne liggéey état mënul lépp ni ko directeur waxee mëna samp école bi waye lay dëgëral école bi dëkk ndoy ñokoy def euh, parents d'élèves ñokoy def ñu ngi féliciter euh, techniciens yi ñi nga xamé ne vraiment ñu ngi def résultat yu rafet ci école bi euh, di sante élèves yi di sante parents d'élèves yi ma nga jéggulu bu jubé nak ci yalla la bu dëngee ngeen xamné nak doom adam mo moo matut maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. nuyu kilifa yi fi fekk yëpp suñ papa yi suñ yaay yi ak suñ rakk yi ak suñ mag yi den présenté sama bop comme ci sport bi tax ma ñëw fi tey muy taekwondo dina xamal ne sport étude lañ wax ndax man sport bi may def fi mu jugee ci Corée du Sud duñ ko jàng sax ci ay salle ci salle de classe wala kii ci université yi lañ koy jàngee muy xamal ne sport day ànd ak étude pour ñu bañ a ragal suñ doom yi dem defi sport maa ngi nekk Dakar 98 laa commencé def taekwondo. ba jamono jiñ tollu maa ngi nekk deuxième daan centre noir association bi Modou Bousso joxaane moom moo ma ci dugal te dañuy séq yu bëri man ak moom bi ma gisee ma nekk Jurbel fan yi depuis temps bu yàgg waxtaan ci ak man bi ma waxee propos yi ma wax yëpp wax dëgg yàlla mu doy ma seet sama xol tamit ma kontaan trop pour ñëw yoral leen salle bi biñ ci waxtaanee ma accepté ko ko bi ma woowee tey dem Touba laa demoon dama xawoon guddee sax mu xëy fayar woo ma ne ma ñu ngi lay xaar fii pour nga ñëw présenté wu salle bi dinañ ko bi ci décembre bu soobee borom salle bi nag euh, xëy na du xale kese ma paa mën na ko def sport yi paa mën na ko def maire mën na ko def jànq mën na ko def jeeg mën na ko def ñëpp dañ koy def sport la pour defar sa yaram la pour ñu xamee ko noonu du pour xale rek waaw su ko defee daal ñu ngi leen di ñaan euh, ñu ñimee bàyyi suñu xale yi ñu dem defi sport même bu dul taekwondo ñu def sport parce que sport dina nekk mooy premier médicament fi mu toll nii ci àdduna bi ndax hôpital boo dem bu fekkee da nga mobi am mobilité pour mën a dem sport yi dañ naan demal defi sport bu dee xale nga bu fekkee man nga dañ naan la nga dem waaxu boo mënul daw nga nga waaxu soo mënee daw nga daw pour ñu xam ne sport dafa am njëriñ waaw loolu daal laa amoon lu may wax maa ngi jégalu ñëpp di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq. jërëjëf man du ma wax lu ma gamul mais ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom association bi jéppi wuñ ko jéppi ko parce que nit bu fekkee ne lépp looy def danga ko partagé ak nit ñi. koo jotul téléphone sax dina la jaral naaj wu tàng nga sol sa dàll walla boo jullee timis ba pare dem fa. waxtaan ak mom kon na leen leer ne ko gisut ku ne manque d'engagement kooku la manque de détermination la aussi mais aussi ak peut-être du ko wax ndax jamono mom ma xat ndax du ne il est irresponsable parce que sama bop la koy nat ndax dañ may soxla des fois duñ ma jot te je suis le secrétaire chargé à la communication mais dal doyen Diaga président à mon nom et au nom de tous les membres de l'association mooy merewuñ ko je wuñ ko amuñu luñu ñu naqari war na mi koy def mi ngi réfléchir par rapport à un plan programme mais toujours luñ ci réfléchir mi ngi xol nan lañ koy chapeau et mention spéciale ak yow la vous avez la parole asalaamaaleykum mbooloo mi merci Aruna, mon frère euh, kaddu yi rafet na ñu ngi di ñu ñuy wax bismillahir rahmanir rahim wa ñu ngi julli ci sang-sang yi di sante yalla bu baax di jull di di di gëreum suñu wajur di sante mbooloo mi yëpp di vraiment suñu xol dafa fess parce que ñi fi jaar lepp kaddu yi rafet na danaka li wara wax yëpp wax nañ ko daal di mënuñoo ñàkk bañ a wax ñu ngi commencer d'abord par remercier le directeur mooy Amadou Tall ñun dañuy wax rek te yàlla tax parce que école bi euh, ñu ngi ñu ngi fiy bëgg a yàgg mais directeur yu bari jaar nañ fi mais wax dëgg yàlla directeur bi macha allah waaw am na engagement am na passif sawar na disponible na loo ko wax bala ngay yeggali mu ne la nii léeg sax moom moo lay woo di la soññ vraiment ñu ngi koy ñaanal di témoigner ci devant les parents ne leen am ngeen directeur bu baax waaw liggéeyam rafet na te résultat yi mu fi amit wane na ko ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di remercier euh, kilifa yi fi teew yëpp bu ma ko yëkkatee teg ko ci doyen grand Ndiaga muy délégué de quartier bi teg ko si loxo euh, sëñ Xaadim Ba mu jottalil ma ko ñëpp ne ci turu association bi maa ngi nuyu ñi ma bokkal association bi yëpp fàttewuma kenn waaw liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko bokk muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw waaw liggéey mbooloo la yàlla dafa dogal rek ma nekk ci bopp bi waaye jàpp naa ne sax li ci gën a am solo man defuma ko waaw ba ma bëgg ngeen xam loolu ñu ngi nuyu ñëpp parce que ñu limee dañuy juum fàttuñ kenn ñi fi jaar ñëpp muy mag ñi muy ndaw ñi parce que am na ko wax léegi euh, woote yomb na waaye woote ñu wuy si la yombul donc vraiment seen taxawaay rafet na ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm même bu dee duñ leen di wooyee seen njëriñ la parce que ñu fiy yëkkati pour suñuy seeni doom suñuy doom suñuy rak mais mun nañ leen ko bañ a déggee noonu ngeen bañ a ñëw wala ngeen oyofal ko mais seen taxawaay wane na ne école bi ñor na leen seeni doom ñor na leen koñ bi ñor na leen donc loolu ñu ngi leen ci sant di leen gërëm su loolu wéyee maa ngi ñëwaat ci Grand Diaga Diop parce que comme li ñu wax rek ñun dañoo ñëw jël flambeau boo xam ne dafay nekkoon parce que association bi xaw na yàgg ci jamono Baye Birane Thiam ak ñoom Grand Diaga ñoo ko fi yore woon ba ay jamono ñoom Mohsin Diagne ñu ñu bàyyi parce que loo gis dafa am période dem nañ ba ay jamono amatuñ jot bi ñu ñëwee ñun ne dañuy defaraat benn dañuy tegaat beneen association ñu waxtaan ci ñoom ñu ne am na association bu fi nekkoon léegi puisque koñ bi benn la te li yéene ji yëpp benn la li ngeen di dem di defaat beneen association ñoo leen ñu jébbaleen association bi ngeen continuer liggéey bi parce que ñoo bokk koñ bi ñoo bokk yéene yi ñu yombaloon ñu yëpp yëkkati association bi teg ko suñu loxo ñuy góor góorlu lépp luñ siy def suba ngoon dañuy dem ne ñoom ñu jox ñu seen xalaat orienté ñu vraiment ñu ngeen si sant bu baax di leen gërëm. ma leen di seedeel ne grand Ndiaga Diop di délégué de quartier li njëkk dugg ci association moom moo ko fi njëkk a def waaw donc moom c'est le premier cotisant de l'association waaw ñu ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm bokkut ak conseil yi ñuy jox di ñu jox jotam di ñu jox temps vraiment loolu mënuñ ko see fay ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaw association bi nag euh, ñun biñ ko jëlee léegi mën naa ne ci ay weer la toll parce que daanaka janvier lañ démarré donc ñu ngi ci neuvième mois te dañ ko jël ci contexte bu xaw a métti problème corona bi xam ngeen feebar yi bari na ak day dem ba benn instant parent yi seen doole néew na donc contexte bu xaw a difficile lañ ko jël carte de membre yi ñu confectionné woon defaroon nañ juróomi téeméer carte membre mais daanaka xaaj bi lañ lañ jot a jaay li ci des ñu mu ngi denc mais loolu lépp dañu xam ne jamono neexut ñu jël suñuy poste di ko làmb di dajale suñuy dërëm suñuy tànk te xam ne ñun koñ bi lañ am amuñ lu raw koñ bi te koñ bi suñu doom ño fi nek suñu jabar suñu jarbat donc ñun luñ def si koñ bi suñu bop lañ ko defal ñu xamé ko non vraiment di si gorlu commencé ko ci école bi comme niko directeur waxé daw bay nañ ko ren defaat nañ ko inshallah non lañ ko fas yene parce que école bi suñu école la li nak ñu fi def da ngeen japp na ñun suñu asaka yene lañu def parce que bëgg ñoo bàyyi école parce que daara ci si école lañ bok parce que xalé buñ jangé fi bu dimanche wala samedi wala yeneen jour yi dañuy dem ci daara ji donc école bi ak daara ji dañuy complété ñoom ñëpp benn parce que ñoom ñëpp ci éducation la ñuy def te yàlla dafa def ñu doon ay julit donc lépp lu ñuy sos dañ ciy boole daara yi comme ni ñu ciy boole école yi parce que ñu ñëpp njaboot gi benn la donc moo tax bi ñu xalaatee lii ñu ne mu tuuti mu néew nañ ko boole daara yi boole ko école bi parce que ñun ñëpp suñ njaboot gi njaboot gi benn la donc ngeen xamee ko loolu. association bi nag yàggu fi ni ma leen ko waxee ay weer la fi am mais ñu ngi fiy jéem parce que li ñu wax àddina moom jéem la ak yéene jarul ma ñëwaat si bilan bi am na yu ñu fi def euh, ci koor gi am na ay ndog yu ñu toog yóbbu si jumaa ji yóbbu yóbbu fi suukar béy fi école bi et cetera école bi it vraiment ñu ngi ciy jéem suñu kent laay kattan di si ànd ak waa Soora yëpp saa yu wootee ñu wuyu ñu muy góor muy mag muy ndaw donc loolu vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax. kit scolaire yi ñu wax ni dafa bokkon suñu programme parce que ñun dañ ne développement Sora mo ñu yor mo ñu ñor mu yokkute Sora donc bàyyiwuñ environnement santé bàyyiwuñ éducation bàyyiwuñ sport bàyyiwuñ dara li nak comme ni ma ko waxee asaka yene la ñu jël suñu deureum ak suñu tank bu ngeen gisee li fi ne wa Sora ñom ñoko def parce que mënon nañu dem ci politiciens di talal loxo li daw suba ngone ne ñu may leen luñ def Sora man dama jàpp ne développement du noonu développement mooy ña ko moom ñu génneel seen bopp ku leen si fekk fekk leen si parce que nag defal sa bopp moo gën a neex te dañ ne ndimbal na si fekk loxol borom ñun nag duñ xaar ma sàmba duñ xaar ma demba dañuy jël suñuy poos suñu doole suñu ñaq suñu xalaat nekk si yoon wi di defal waa Merina Sora parce que Merina Sora lañ am li ñu am lépp fii la nekk ku ñu si fekk baa na ku ñu si fekkul ñu dem ñun duñ geesu ma xamal leen loolu. taw soobee yàlla na ngeen ñu ñaanal incha allah bi am nañ yaakaar ne association bi dina weesu fii te su ma ko waxee am na fu ma ko teg parce que am na ñu nekk suñ ginnaaw di ñu ñaanal di ñu tette te xeebuñ leen ñu nit xeebuñ leen waaw ñu ngi wax ngeen ñaanal leen ñu baax muy grand yi toog fii ak ñi fi nekkut parce que ñëpp mënuñoo ñëw parce que jamono ji dafa xat vraiment suñu xol dafa sedd lii daal ngeen jàppale suñu asakaay yéene la liggéey bi ñëpp ko bokk ñi fi teew ñu ngi fi jox xaaliss ñu ñek bitim rew yónnee nañ fi seen xaaliss wa koñ bi mënuma ko lim bu limon ko fi lay fanan ku nek sa deureum duguna ci si donc li ñun duñ ko damo parce que ñun ñoko momal suñ bop donc suñ xaaliss lañuy sédalé suñuy dom dégg ngeen donc lool dama bëgg ngeen xam ko ñi ci sant wa koñ bi yépp parce que mënon lañ leen wo ci lu baax duñ ci fekk mais dañ leen wo si lu baax ñu sawar ci duwal seen xam-xam duwal seen xaaliss ñu sant leen ci gëreum leen ci parce que woo woo leen ci lu baax ñu déggee ko noonu loolu dafa seen xol ñu ngi gërëm kilifa diina yi di gërëm góor ñi di jigéen di gërëm ñëpp xeebuñ kenn di sant yàlla bu baax lii nag comme ni ma la ko waxee bariwut mais puisque commencement la dañ ne nañ nañ ndoorte loo gis day sew bariwut mais bari na parce que kuy doog a commencé amagoo at nga dajale juróom benn téeméeri kaye dajale juróomi téeméeri big dajale ñeent matelas satala dajale ñetti bassin yu mag te dañu doog a commencé donc ñu bëgg ngeen ñaanal ñu liggéey bi gën a am solo ñu gën a yëg yëkkatiku ba bu soobee yàlla lii ñu mën déwén bu déwénee ñu mën lu ko raw parce que loolu mooy suñu yéene ñun daal dañoo bëgg sooraa nekk sa kanam te am nañ yaakaar ne dina ne si kanam parce que di ngeen ñu jàppale am nañ si yaakaar xeebuñ si kenn carte membre yi mu ngi fi dinañ defaraat yeneen dinañ gën a takaayu. vraiment pour affaire bi gën a jëm si kanam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp léegi damay bañ a guddal parce que waxtu yi dafa xaw xat ñu bàyyi suñu délégué de quartier bi moom moo fi nekkal autorité yi mu jël kàddu gi pour wax si seen tur vraiment di santaan ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax na kay yi bariwut mais jàpp nañ ne si loxo directeur mi ñu ko teg ak ak API bi di xadigéey ak ñi mu àndal dañ koy teg seen loxo su ko defee ñoom ñu xool nu mu gën a rafetee ak ñen ñoo ko gën a soxla ñu jox leen ko mais jàpp leen ne xeeb nañ ko lool di ñaan yàlla ëllëg bu ñu gën a am ay yeneen moyen pour bu beneen édition mu gën a yokk waaw ñu ngi sant ñàpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw wasalaam jërë ngeen jëf merci parce que tàmbali na naaj xam naa da ngay taxaw nii rek suñu joxee délégué mu wax ba pare après ñu def la remise symbolique nga jël ko jébbal ko nag léegi association des parents d'élèves mu jébbal ko directeur directeur moom dina xam bu baax a baax lan lañ ci def may wax rek ne comme ni ko Ndeene waxee mooy ñi ngi remercier population Mérina Sorah yépp sans exception parce que ku ci nekk tey lii ñu def am na ñu ci yëkkati seen ñaar dërëm seen ñetti dërëm yëg ko rek ñëw participer xam na ci seen njaboot lañ koy def mais aussi xam ne ci suñuy askan lañ koy defaat kon ñi ngi remercier population bu Mérina Sora bu baax a baax a baax ndax gis nañ bu baax nañ fi dem ñuy wax ne rek ba tey association bi carte de membre yi ñi ngi fi képp koo xam ne tey association bi yitteel na la wala doxinu Mérina Sora yitteel na la mën ngaa gis ki nga xamante ne nii moom mooy moo Modou Bousso Diokhane juróom benn fukki dërëm rek la ñuy wecci ko carte bi léegi dañuy jël kàddu gi jox ko la délégué mais monsieur Sène kuy lebal da ngay lebal xale man des fois sax école bi ma nekk je parle sous le contrôle de madame Diak ñu ne ma Njaay da ngaa ñàkk fayda yére boo fi indi xale yi taxal ko ci xale yi ngay nekk di wayantoog di fo ma ne leen il faut il faut beaucoup faire attention parce que xale dafa yéeme te dafa doy waar te ëllëg moom mooy denn ku nekk te suñu wasila bu baax ba sëriñ Saaliw Mbàkke daf ci daan wax lu am solo daf ne tudduñu ay xale tudduñu ay gune ku nekk a ngi ci ñoo xam ne nag ku nekk mi ngi ci booy séq ak ñoom walla booy leblante ak ñoom bu yeboo na nga leblante ak ñoom lu rafet parce que xale yi ëllëg ñoom ñooy màgg te bul xam kenn luñ damay wax benn affaire je donne damay joxe benn anecdote dama dem ba war a def sama examen au CAP maître bi nga xam ne moom moo ma jàngaloon sem 2 muy monsieur Bassirou Badiane ñëw moom bokku ci commission bi. bi mu duggee yem ci man il a pleuré dafa jooy mënatut a yeggali commission bi ñu ne ko lan ngay jooy mu ne kii tey ma ñëw di ko inspecté si pour muy def CAP di jàll diplôme professionnel am man maa ko doon jàngal CM2. imagineel kooko bu fekkoon ne am na leneen lu ñu séq kon xale yi tudd ñu ay gune mais ku nekk a ngi ci kon ku ci nekk ci ñun na ci bàyyi xel mais aussi ñuy wax ne inspecteur Diaga Diop aussi nit amut fayam population de Diourbel laa wax population Sénégal ñoom ñoo war a ñaanal ñu mel nii mag ñu mel nii ñu yàgg fi parce que buñ fi yàggee njariñu askan bi lay doon parce que buñ gisee lu ñaaw ñu dox buñ gisee lu nar a yàqu ñu dox buñ gisee luy defar ñu dem ci buñ gisee taal bu nar a tàkk ñu jël ndox teel koo fay ñooñ dañ leen a war a ñaanal ñu yàgg ci te dafa am mag bu baax bu ñuy wax maam Abdou Aziz Sy Dabakh daf ne ñett yi defar àdduna yépp dañoo xees te saxuñu karaw ñu ne ko lan la mu ne làmmiñ ak loxo mu ne ak tànk mu ne làmmiñ mooy fekk lu nar a yàqu mu di ci wax ba mu baax ba jàmm amaat ñépp nekkaat ci jàmm mu ne loxo mooy fekk fu soxla am mu dugg ci biir poos fekk soxla soosu lijjanti ko ba gàcce du am mu ne waaye tànk bi mooy fekk fu gàcce nar a am fu mbokk nar a yàqoo mu di ko dox di ko lijjanti wala muy seeti ku feebar kon loolu lépp ma wax tey daje na ci doyen Diaga jóg mii nii bi mu jëlee lenge yi monsieur Sène jëlu ko rek jox ñu mais daf ko jël ba pare jël loxoom dugal ci biir poosam ba pare nag jiital ñu woowaat ñu ñu ñëw këram mu nañu règlement intérieur bi nii la jañoo ko jox mais mu ne kaay leen koy séddoo kaay leen ñu koy partagé lu ci jara retouche ñu def ko ci ñu yaakaar ne fa la ñuy yem mu jëlaat loxoom dugal ci poosam jënd juróomi téeméeri carte de membre defar ko jox ko association bi ne man maa ko participer kon kii dafa jara ñaanal parce que nit bu defee lu baax da koy wax pour nit ñi mën a copier ci moom di def lu baax souvent dañuy yakarne non non non nit ñi de nañ fuñuy taggé nit ñi de mais nit buy def lu baax na nit ñi di wax ne nit ñi ñi ngi def lu baax bu ñi classe gi nga mësuñu ci jaar buñ fi gor lu ji dem défé lu délégué de quartier vous avez la parole. de wa rahmatullah. Euh, sama xol très ci témoignage mais man damay wax ne euh bima sante yalla ba pare julli ci yonent bi di nuyu mbokk yi nga un euh khadim wax nu euh, di ci ji di ci noddu ak yi euh, mi président am na ñoo xam ne xañ na xamuñu adécatif mais maternité Elisabeth Diouf bii ñun ñoo ko fi indi ak madam Elisabeth Diouf grâce à ñu ciy sant bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ doon àndat feu Adama Thiam yàlla na ko yàlla dolli leer nit ku baax nga noonu nit ku liggéeyal kër Cheikh la nit ku liggéeyal njaareem la doyen Birane wax ngeen ko ba léegi ma nga dakaar mais teewul mi ngi contribuer ci loo xam ne mi ngi doxal euh, Medina Sora ak ñeneen ñi nga xam ne mënuma leen a wax euh, man nit ñi dañ may sant mais maa war a sant nit ñi ndax kóolute dafa metti te bu nit ñi ne yow wóolu nañ la yaanu doy mais da nga war a nekk jaam pour nit ñooñu di dox seen soxla ba sa ba nga tële wax dëgg yàlla péri euh, population Médina Sora maa ngi leen di dellu si chaque fois ma am kàddu ndax bu ma taxawee fii tey di wax loolu moo tax mu may wax man nekkatuma inspecteur retraité naa amatuma benn kàddu bu may wax ci école yi mais bu may taxaw di wax fii Médina Sora moo tax kon maa ngi nuyu di sant population Médina Sora yëpp di leen ñaanal yàlla jàmm di ñaan yàlla nag kóolute gi nga xam ne am nañ ko ci man ba dénk ma sous quartier bi yàlla bu ko dara gàllankoor guddi ak bëccëg lu may dox rek pour fedd li seen kóolite googu ñaan yàlla kenn du ci am loo xam ne naqane la bu loolu paasee ñu ñëw ci li nga xam ne moo nu fi tax a tase wax dëgg suñ xel dal na ndax li tax suñ xel dal na euh, président waxoon na ko ñun dañ fee daje woon ay at ci gannaaw

bi recevoir madame elizabeth Diouf ci la jóg wax porte parole ne maternité Elisabeth bi ñu sos ko loolu mo fi indi eh, eh, eh, maternité Elisabeth Diouf ñu taxaw ko nak diko ko liggéey di liggéey ba nga xamné ñewna ñu am fi euh, sage femme def ci action sociale ba na naqadi jamono motax yenn yu bari mais amna yu bari yo xam ne fi nit ñaa ci jëngu wat ndax amna na association yu yagul rek yo xam mayenañ fa ben échographe

ndax demoon nañ ba de mais luñ réaliser ndax ku dem madame la première dame Elisabeth Diouf Elisabeth Diouf ci ku ko déplacer xam nga amna doole mais politique yi politiciens, dem ne nañ kon ngi leen di bu ne da leen di leen ci ligne conduite na orientation na jàppale ci seen statut ak seen règlement intérieur mais bu leen kenn pénétrer bu ñu leen pénétrer rek lii ngeen def du ngeen ko mën a def réalisation yi dangeen di soog a tàmbali man xam naa lépp ndax wax dëgg yàlla bi nga xamee ne dem nan ba nga xam ne xool nañ amatuñu jot association bi dem ba daanaka doxatul ñoom ñu ñëw ne dañuy former beneen association ma ne leen jaru ko ndax association fi te am nañ suñuy kayit association bi am nay kayitam am na suñu récépissé au lieu ngeen di créé waat benn association mais jël leen association bi kayit yaa ngi fi ngeen continuer liggéey ci loolu lan def mais wax dëgg yàlla bi leen ko joxee taxut ñu bàyyi man dama noonu leen dama ci génn mais ndeene félicitations yi ñu koy def lu mérité la ndeene bu naroon na jënd big sax dana ma woo téléphone wala mu ñëw ba ca kër ga ñu toog waxtaan ci bër ki démb avant ñuy def lii ñëw nañ kër ga presque chaque jour sama kër ñu réunion fa te man wax dëgg yàlla conseil rek laa bokk mu ci kon loolu mooy wane ne peut-être ñoom seen équipe bii bëgg nañu continuer li nga xam ne moom lañ doon liggéey yàlla na yàlla jàppale leen ci. action yi ngeen def bari na wóor na ma wóor yàlla ne do euh, kii bii directeur dama doon leen préparer leen ko ba déwén dama doon leen préparer leen ko ba déwén ndax jàmp na jàmp boo xam ne. xañ na nan ko beugé du nek mais ñu ne ma grand dal nan jima def rek lu am kon lolu aussi ambition la nit ki bu fekké da nga bëgg dara li ñuy wax coqa ma gën këm neenal ci dara au moins ba nit gis ko mo gën ko def té li directeur mi di wax ak yeen xam na lu am solo la ndax yeen parents yi xamulén ko de mais ñom dañuy génn ci seen xaalis léegi-léeg élèves yo xamné ne ñu amunu amuñu léeg-léeg élèves yoo xam ne amuñu bic ñuy jënd ay seen xaalis di leen jox ndax élève mënut a liggéey te amul bic élève mënut a liggéey te amul cahier te léeg-léeg composition taxaw wala leneen taxaw élève bi amul cahier devoir te war na évaluer bu amul cahier du dem kon lii ndimbal la ñuy ñaax ñëpp continuer orientation association bi def ne association bi wala ndimbalun am ñu jox ko association bi dimbale ko ndax ñii kat ñii kat. lii nu def seen poos lañ génne mais aussi ay nit jàppale leen ci kon nag parents d'élèves yi ñoo ñi nga xam ne ñoo war a njëkk a jàppale association bi jàppale bi dem na ba ci jënd carte de membre yi association bi dem na ba ci fexeel noo xam ne di mu liggéen jigéen ñi ñoo fi gën a jàmbaare ñoo fi gën a mën a teew mais nag ñoo fi gën a mën a yàq lekk léeg yàq na am luñ ciy sànni mu ñëw ci école bi lu mën a nekk la mbootaay yi ngeen di def ak xawma ay avec la mais créer leen ci loo xam ne ab source la mu jëm ci école yi lu mën a nekk la ah loolu lu mën a nekk la ndax actuellement nit ki lu muy liggéey rek day fexe loo xam ne dana ci développer quartier am développer quartier nag kenn ku ne dangay ngay xolaat fa nga nekk ak la ngay yëngu nan nga nan laa ci mën a def ba dimbalee ci nit ñi kon ñu ngi sant ñëpp wax dëgg yàlla bëgguma guddal te euh, ma ngi ma doonoon wax ne mujj jël kàddu cim ndaje day tax daanaka doo am la wax la wax ju raf ju rafet ji ak ju baax yëpp wax nañ ko kon ñu ngi santaat yàlla bu baax di feddali sun cant ci waa Médina Sora di encourager association bi di leen wax ne sama kër guddeeg bëccëg saa bu ngeen amee rek wax dëgg yàlla euh, seen orientation gis naa ko seen positif gis naa ko gis te loolu man mooy li nga xam ne moom mooy dox actuellement man politiqueruma defatuma dara lépp loo xam ne social daal danaa ci yëngutu lu dul social nag ma génn ci directeur mi ngi may wax léegi itam ne ex-Renaissance yi aussi day mbir moo xam ne mbir mu day waar la ma ne jigéen ñi duma wax góor ñi parce góor ñi teewuñu fi mais fexe leen ba ku ci ama ci nenne bu baayam nekku fi ndax yenn bàyyi ñu ci bari ñu ngi ci àll bi dañuy ñëw rek def li ñuy def dem seen yoon ah mais nan fexe maam faati ma ngi rek waxuma waxuma la de maam faati nan fexe ba au moins bu nuy ngénte dana la jox attestation euh, euh, certificat d'accouchement boo amul kenn koo jox andil ma ko boo ko ba mu ko andilee man danaa ko wutali kayitu judd te day affaire boo xam ne danga ko def doo ci fay dara doo ci sonn mais bu toogee ba am at rek fokk nga dem tribunal pour am ko kon nak lolu aussi euh, ndene euh aw sas la woo xam association bi aussi nan ci yëngutu kayitu judd yi actuellement vraiment ça pose un problème élèves yu bari ñu ngi ni defu ñu examen té lu tax ñu kayitu judd initiative yi ñuy def fi mu ne maa liste bo xam pour ay kayitu judd mais ñako initier won ba légui aussi neeku fa ñu ngi ñu ngi taxaw té amna ci ño xam ay élève la do war wara def examen kon lolu aussi a ah, ñun ñëpp nañ ci bokk mànkoo seet ba xam ne noo xam ne dañ ko def ba xale yi kenn ku ne am sa kayitu juddu ndax loolu droit la gis nga fi mu ne fonctionnaire yi fonctionnaire boo xam ne ah, sa sa jabar am na doom danañ la may ñaari fan ñaari fan la la la la la lu yoon wi may benn fan bi pour nga tudd ko jox ko tur ndax xale bi dafa war a am tur benn benn fan bi pour nga dem déclarer ko mu am kayitu juddu kon nag njagam loolu dafa am ba ki nga xam ne mooy eh, loi daal tëral loolu mais ñun ñi nga xam ne ñoo ci topp nag war na nañu góorgóorlu ba loolu ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaan yàlla yal na yàlla gën a boole nit ñi boole xol yi ah développé Mérina Sorah développé Kër Cheikh développé jurbel développé Sénégal yëpp ñu ngi sant ñu ngi gërëm comme ni ko tubaab di waxee le moment de conclure est venu yaakaar naa ne yegg nañ fi nga xamante ne nii nag fi lañ war a joxe li nga xamante ne nii moom moo ñu fi dajale waaye ci problème mu extrait de naissance yi directeur ñi ngi lay ñaan ñun waa association bi xale yi nga xam ne dañoo nekk ci école bi te amuñu ay këyitu juddu ñu recensel ñu ko ñu xam ko ñun bu ko defee ak c'est déjà fait bu ko ñun association bi dinañ ci taxaw xol nan la def ba ñooñu nonu am këyitu judd même mag ñi nga se sax seen yitte la amuñu këyitu judd nañu jege rek ndéné wala ñu gis ma wala ñu gis Modou so Diokhane wala kum ci mënti doon rek nous pensons avoir entretenu de très bonnes relations avec les autorités qui sont là

dañ koy jox rek mais ñun duñoo koy joxe mais fi mu nekk association des parents d'élèves jébbal nañ leen ko ñoom ñoo koy mais dañuy jël ñaari xale rek pour waa ji mën a am film bi mu doon la remise symbolique buñ paree ndeene yëkkati ko jox ko délégué délégué jox ko présidente APE bi mu jébbal ko école bi ah la ca des nag ñoom la ki ñuy njëkk a jox moom mooy soxna abi waaj anamu soxna abi waaj ñëwal

avec ses maigres moyens monsieur Diaga ba jënd juróom benni téeméeri kaye jënd ñaar téeméeri bic ak juróom fukk pour ñu jébbal ko école bi suñ paree it de la même sorte ci la ñuy dem ci daara yi jënd nañ ay basang jënd ay satala jënd li nga xam ne moom mooy ay matelas ñoom tamit ñu jox leen ko tey ñaan nag ngeen ñaanal ñu bu déwénee ñu mën a def loo xamante ne nii lu extraordinaire lay doon kon léegi ndeene président yow yaay jël jox la délégué mu jox ko présidente APE bi mu jébbal ko nag léegi la directeur d'école bu ko defee nag mu des directeur ak parents yi voilà c'est ça directeur madame la présidente je vous remets en fait symboliquement les kids qui sont destinés à appuyer la direction de l'école pour venir en aide aux élèves nécessiteux en vue d'une fonctionnalité et d'une de, de, de, l'amélioration des performances des élèves. Merci Merci. yal na leen yàlla fay te di ngeen ko gis bu baax incha allah rabbi ñu ngi ñaan yàlla suñu borom bi kenn ku ne ku ci amul rek nga xam ne loolu la yàlla doy dogal daanu moo doy suuf waaye ñii ko joxe bu ñu sañoon tey ak ñun ñii kenn du manqué mais mbiru suñ borom merci maintenant la photo de famille la photo de famille da ngeen di dem ci taabal ji fële euh, da ngeen dem taabal ji fële mu ngi nii remise symbolique bi mu doon basang ak satala matelas yi ne yi ngi ne ci ginnaaw pour aussi ñu jàppale ko daara yi nga xam ne ñoo nekk ci sous quartier bi. donc sëriñ bi eh, ci turu association bi ñoom itam nin tegeve seen loxo ci école tubaab bi moom lan am yéene itam jàppale daara yi ci loolu lan am ay satala ak ay basang ak ay matelas. yoo xam ne xëj na bariwul waaye au moins ñu xam ne daara yi fàttewuñ leen ah ngeen dolli leen a ñaanal ba suñ fi tasewaatee li jëm ci daara ji ak li jëm ci école bi mu gën fee takku ba nga xam ne kenn ku ne mën na ci gis sa bopp baax na jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziara wax ji dafa matale lool sax moo tax. Euh, dañ ci yokk rek parce que woykat bi daf na xayrul kàllaami ma xalla wa dalla wax ju gàtt te am solo moo gën fuuf wax ju gudd te daanaka lim làmboo bariwul euh, yéen ñi nga xamante ni yéenay élèves yi ñu livre yi ngeen xam ne da yéen a war a jàng joxuñu leen ko rek ngir ngeen dugal ko seen saag yi da leen koo jox ngir ngeen di nafar nafar yaakaar naa mooy réviser Serigne Touba dafay wax ci nax ju ne wala tuturiku muttariki fi ma hafisaha wala ko fi an yamsa la budda an yamsa wala tutruku fi ma la budda an yamsa maanaam booy jàng te la nga jàng nga mokkal nga wëlbati ko bàyyi ko nafaroo ko xalaa kulli foo jaar da ngay fàtte te loolu nag yéenewul leen ko yéenewul ko suñu bopp wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.